xasida yi rek lan mën a xam sëriñ bi ci xasida yi rek lan mën a xam sëriñ bi xasida yi rek fi ne xasida yi rek fi ne lu dul xasida yi lu dul xasida yi dara néew fi waduud kulli abadan bil wuddi wa damini andarin wa kaddi waduud kulli abadan bil wuddi wa damini andarin maanaam loolu muy wax ci siyaar bi ni daaw bëgg koo jot li fii nag waxuma la siyaar bi jàll mais siyaar ba ko jiitu wax yam ñu wax jaral na bu ñuy delluwaat di ko siyaare ñu waaj weneen waajtaay wu daaw wii nag maanaam ndigal li mu joxe ren jii nii daaw la nu ko junjeen ñun ndax dafa ñu ne seen jataay bi su ma sañal ku murit wala côté jullit sax teewe ko loolu kon xam nga wax bu rëy la ñu koy laaj muy të suñ digg ak mun Muntaxa ñu koy laaj muy të suñ digg ak xasida yi wax dëgg yàlla war nañoo seetaat suñu bopp jékkut jaaduwul ren jii nag ay waay nañ nañ nañ dimbali suñ bopp ndax li ñuy def dafa luñ kenn kuru suñu ndax moom li suñu borom wax ne moom kenn ku ne moom dina wéet ak yow ba nga yaakaar ne doo dong la bind loolee mat nay mat nay xam te wax dëgg yàlla am murit man jàpp ma ni am na lenn lenn lu muy dëgër loo lu dul Sëriñ Tuubaa ndax sart yi war yépp muy man muy saa morom matale gi yombul man de awma benn benn benn yaakaar ëllëg bul siñ tubaa may dimbali yaakaaruma ko ci jëf yaakaaruma ko ci lenn sëñ Tuubaa dong laa ko yaakaar mu dox sama digg ak lépp lu may naqari ba ëllëgee kon nag war na maa am jomi lépp luñ koy jëfal wala luñ koy waxal te it maanaam yëf yi boo koy xool ba ci digg bi day mel ni maanaam wax tey weddi sa bopp ëllëg daf ciy am te liggéeyu xaside yii ak ci daayir yi maanaam kenn jëliwul kenn këram indi ko ci dama koy yàgg di wax kenn ku ci nekk yaa xool xool yoon bi xool fépp jàpp ni fii fila la wala fii mën naa fee jaare nga engagé wu dugg fi waaye waaye la nga engagé wu dugg ci nit ki li nga waxal sa bopp la sa sañu laa waxal rek soo waxee de dégg nañ ko waaye soo jëfee waaw kay jàpp nañ ko kon nag wax na ci xasida yi laa bokk yomb na waaye nag danga koy jëf diine sax waxal ciy dugal waaye nag jëf moo la ci bàyyi ndax képp ku wax baat seede yi doon nga jullit waaye nag balaa ngaa sag jullit a wér nga def ponk yi yi ci topp soññee bi may soññee nag maa ngi tuub ci ñi nga xam ne ñoo ma féete ak mag waaye maa ngi koy jëmale ci ñi nga xam ne ñoo tollooy at rawatina nag ñun ñi nga xam ni ñooy toog tiim xasida yi di ko yëkkati ji wax ji ñu na buñ naxante buñ nax suñ bopp maanaam la sëñ bi waxoon maam Thierno ci ba ñuy yëkkati xasida yi mu dem ba am fu mu toll mu ni ko waaye ka ko doon bind nag xëy na sax duma ko mën a leeral nañ koy waxe waaye ñun bu ñuy jàng xasida yi waruñoo bànneexoo rek yëkkati geeg daaj yi war nañuy bàyyi xel ki ko doon jëf ak fam ko doon jëfe ak circonstance yam ko doon jëfe ndax ni ko suñu blaat waxee ni fam ko doon defe ku ko naan amin doomu amu fa woon amu ko fa woon ci ginnaaw ku ko naan amin doomu daaw ko dégg waxuma la dara waaye jëmmi màggal gi rek war nañuy jox aal joo xam ni bu ñuy siyaari sëñ Muntaxa da cee war a feeñ ndax jëmmi màggal gi kenn ku nekk xam na li waral màggal gi jëlee sëñ bi ci njabootam ci ci ak daram jëmee ko ci ay coona xëy na moom loola jàppewu ko woon ay coona ndax ab liggéey la bu mën woon a ñàkk waaye boo xalaatee ci ni ko nit di xalaate ñu xëy nit génne ko ci njabootam mel na moom dong doo ànd ak kenn wala moom soxlawul a ànd ak kenn génne ko foo xam ne ay at ku mat a bàyyi xel la loolu nag dama koy baaxe ñëpp maanaam lu waay xat xat xat na la ko jaral ak foo ko man di fekk ndax doon gim doon doon sëñ Tuubaa lu wér la ci saayir ak ci baati waaw kon nag nañ takkaat suñu suñuy ndigg te jéem a góorgóorlu rek ñu ngi jégalu wax ji dëng na waaye ngeen xam ne ak bëgg rek lañu koy waxee wasalaamaaleykum. nekk leen ci rek nekk leen ci rek day gën a neex rek di gën baax di gën a sell di gën a bàjj na rek nag.